ñu tojee dañ leen bàyyi ñu seen ñu tojee bopp bi la. alors mënuñu bañ a wax ci coow Palestine Sénégal bokk na ci réew yi njëkk jàppale Palestine bokk ci réew yi ko gën a jàppale keroog gis nañu premier ministre ba mu taxawee ca jotaay bañ leen jagleeloon doon leen ca jàppale na mu waxee àddina yëpp dégg ko mu ne Sénégal ma ngay ñaawlu li Israël eh, di def tey lan ngay séentu ci ñoom ñu am ko ci taxawaay eh, ci noot gi Israël wéy di noot Palestine eh, ñu gis la casquette libéré Palestine mu am aussi mu tekki. waaw euh, man euh, dafa am ñaari yëf yoo xam ne daf ma ñor trop Thiaroye 44 daf ma ñor naa la keneen journal ma ñun bëri def journal euh, depuis mille neuf cent quatre-vingt journal légal mille neuf cent quatre-vingt-un ma demoon cimetière Thiaroye journal bi wax ne Mamadou Diop demoon na démb premier décembre siyaare ji cimetière Thiaroye ñun depuis mille neuf cent quatre-vingt at mu ne dañuy dem Thiaroye danoo def ay ay ay ay pièces de théâtre ci Thiaroye def ay poèmes ci Thiaroye euh, Ousmane Sembène bind na ci Thiaroye Boubacar Boris Diop feeñ na ci Thiaroye ak yeneen i artiste ay poète ay romancier yu yu xarañ a xarañ a xarañ mais xamuñu leen parce que ñun boobu jamono dañu amoon lu ñuy wax mouvement culturel patriotique ak taxawal lu ñuy wax front culturel sénégalais dinaa la dinaa la yónnee dinaa la yónnee c'est-à-dire maanaam ñoo xam ne danga naa mais ñii fan lañuy jóge ci wàllu xarañteef mais booba comme parti amul te boo feeñee ñu jàpp la tëj kaso toujours dañ doon signé euh, euh, ay ay pseudonyme lañ daan signé euh, Birame Yacine Ndour que ne signé affaire doon signé rek nekk daal da ngay am si donc caaro yi parce que caaro yi nag li mu tekki moo tax tubaab yi dañoo dem jàppale leen pour ñu màbbal Hitler ak la mu namoon def ci àddina bi tubaab bi ne c'était pour la libération ak ah, kon ñu libéré leen ñoom ñu bëgg continuer ñoom di ñu opprimer soldats yi ñëwoon woon fay ñu leen ne ñoon bala ñu fee jóge ngeen fay ñu ñu rey leen kooku dañoo tekki ne pare wuñu pour di leen libérer ñun moom jàpp ngeen ci ba ñu libéré nu ña fa dee ci ay africain kenn xamul ñaata la waaye nun duñ leen libéré message la woon moo tax message boobu ba tey mi ngi fi kon xeex bi ñuy xeex caare daf ci bokk Palestine même chose Palestine euh, juif ya Hitler euh, euh, faagaagal parce que ab nañu nu ñu organiser woo ak nu ñu amee doole nu ñu amee kàddu diggante bi affaire bi évolue ba nekk léegi sionisme donc du affaire juif wala chrétien wala musulman wala leneen déedéet sionisme c'est une idéologie baa gis-gisu àdduna pour wane ne ñoom dañoo war a tom ci kaw doomu aadama yi ci àddina bépp parce que fee départ la rek comprendre mm. donc peuple Palestine booba ba tey euh, amul jàmm su mi ngi mel ni Sénégal ay nit ay gars yi ñëw fii jógee moo xam ca weer wa wala ca Kalimantan wala feneen ne way boo yéen kat Dakar léegi nangu nangu boo yéen da ngeen a dem côté euh, Saloum yéen da ngeen dem Waalo yéen da ngeen dem Bundu yéen da ngeen dem Casamance nangam nangam Dakar nangu nañ ko kon loolu jaadu na wala ñu dem euh, euh, boori Jurbel daal ne boo léegi li tàmbalee Bambey ba keroog ngay yegg xombal nangu nañ ko noo fa war a dëkk loolu jaadu mais loolu moo xew Palestine te palestiniens yi boobu ba te li xeex li li cay rot ci ay bakkan kenn xamut nu mu toll ndaxte doolu guddi yi am ku ñu naa Benjamin Netanyahu nekk premier ministre Israël moom bokk ci extrême droite yi nga xam ne ñoo gën a njàng ci xalaat boobu ma lay wax sionisme moo yor Israël américains yi jàpp leen waxuma sax jàppale mën naa ne américains yi d'ailleurs ñooy ñooy ñooy xeex xeex comprendre nga. Mm-hmm. Euh, bu ñu bu ñu amee ndam voilà bu boobaa nag ci la àddina bi moom. di dellu ginnaaw bu baax a baax a baax a baax waaye du ñu am ndam parce que peuple yi li ñu bëgg c'est-à-dire ñay dee Palestine di fa tuur deret Liban sa fu deret ju tuuru rek jàppal ne ab taw la boo xam ne ma ngay jebbalaat jebbin euh, gàncax goo xam ne mooy jàkkaarloog ñoom fu benn Euh, euh, bakkan rote gis ci biir junniy bakkan ñooy jóg jà jàmmaarloo ñoom ñoo tax ñoom mu duñu mës a am victoire ci xeex boobu Palestine nag dañ cee cee takk rib parce que Sénégal mooy président le comité pour le respect des droits inaliénables du peuple palestinien ci Nations Unies depuis les années soixante-dix defe naa soixante-quinze la Euh, waruloo yem rek ci euh, di ko wax ni dañ ko war di feeñal saa su moo tax ma sol casque bi. Hmm. jërëjëf président ñu jeexalee foofu xëy na ak message boobu nga lancé électeurs yeeg sénégalais yi ñuy dégloo ndax ñu ngi jëm ci législative looloo sababoon aussi euh, jotaay bi ñu sekkoon ak yow ci Sénégal bi. en tout cas li ma gën mooy Sénégal moom askanu Sénégal jàmm la bëgg naka jekk kenn du ko dugal. ci musiba kenn man loolu laa mas di waxee. Hmm. loolu laa mas di wax fàtte ngeen ne bi ñuy coow coowul élection jàppal bàyyi. Hmm. ba France am benn général bu ne waaw.